mbokk yi dala nag jàmm ci seen euh, xibaaru làmb ji fii ci xam sa mbër TV ñu dikk ak yéen rek ci euh, li gën a fës ci la toile de la lutte sénégalaise euh, bokk na ci information yu ñu jot mu tukkee ci tiis bu dal làmb tey ki génn àdduna ki nga xam ne moom mooy tëggkatu làmb bu mag boobu di Babou ngoom moom nag wàññeeku na tey nga xam ne ni nga koy ñaanal yàlla yàlla jéggal ko yàlla xaral ko aljana yi gën kawe mu nekkoon nag tëggkatu làmb boo xam ne kenn du ko présenté ci réew mi euh, macha allah ci ci ci ci ci man liggéeyam waaye ci euh, bëri jàmm ci euh, laamiso ak kenn ku nekk waa làmb ñu ngi leen koy jaale ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale njabootam di ko ñaanal yàlla waa BTV tamit mu ngi koy jaale képp koo xam ne ne da yëngu ci làmb waa xibaar xam sa mbër tamit ñu ngi koy jaale képp koo xam ne ni da ngay bàyyi xel làmb te di ko seetaan ñu ngi leen koy jaale di wax rek di jàll ci mbër mbër mi nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 euh, ginnaaw bu ñu xamee ne dellu si waat na ci ay entraînement am euh, reprendre na li nga xam ne moom mooy action yi moom nag mu ngi ci entraînement yi métti voilà di entraîner di waajal komba euh, pare na pour bëri ak képp koo xam ne rek tegal nañ ko ko ci kanamam ginnaaw bi mu amee ay tolof-tolof génn na ci ci sant yàlla bu baax nag mu ngi xamal mbër yi ne dellu si waat na ci li nga xam ne moom mooy làngu géew bii di làmb ji moom nag comme ni ñu ko waxee woon rek euh, pare na pour bëri ak képp koo xam ne mbër mu pare la rek kii di Lac de Guiers pare na te ku nekk na war a xam ne tamit ab champion la boo xam ne li may wax rek daan ko yombul sikal ko mën na yomb waaye daan ko yombul ndax mbër la moo xam ne gëm na lu muy def am na ay principe am na ay valeur am na lu mu gëm te am na lu mu bëgg te xam na ko donc mbër la moo xam ne ku ragal gàcce la moo tax ay fansam ñaareel du ñu am lu leen métti ci moom waaye euh, du leen teg loo xam ne moo tax lu muy def da koy calculer boo gisee ne naa ne mbër mu bëriwu defet la lu ko waral mooy dafa am jom am jomam mukk moo tax euh, kii di Lac de Guiers 2 na ci ay entraînement am donc ñu ngi koy ñaanal sago ak jàmm ak salaam di wax mbëri képp koo xam ne pare na pour bëreek moom promoteurs yi ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy dégg entraînement yi njëkk daan commencé na ko euh, moom mii di Lac de Guiers jàmm lañ koy ñaanal euh, di Alburax moom nag mu ngay fësal wala boobu mu ngay publier ci journal bii di arène combat yi nga xam ne taxaw na ko taxawal na ko mu ngay doora li nga xam ne moom mooy ubbiteeg ki nga xam ne moom mooy saison bii di ñëw di saison 2025 bii ñu jëm si koy commencé ci euh, le 12 janvier. le 12 janvier mon midi di Baye Ndiaye taxawal na combat bi nga xam ne moo dox ci ki nga euh, Talfa ak ki nga xam mom moy Pokola grand combat ba moy euh, Giri Bordeaux ak ki nga xam mom moy Zarko. jour tamit ki nga xam mom moy fils de Balla dina ci bëre ak ki nga xam mom moy mooy Diène Kairé combat yi la taxawal ci datu li nga xam mom moy le 12 janvier 2025 bi ñu jom. Euh, voilà ñu jall ci benen date bo xam tamit euh, combat am la wala combat am la euh, mom mii di waa Alburax even le 16 février 2025 su combat bi di Ama balde wara dox ci diggante Ama balde ak kii di nga xam mom moy Franc combat boobu tamit ñu ngi xamal ne taxaw na ñu ngi ko wara a bëre le 16 février 2025 euh, mi Ama Balde ak Franc benen combat ba ci top ci jour boobu lay amat momi tamit di Liss Ndiago ak ki nga xamne mom moy euh, Lagrose benen combat bi mom moy euh, site bu Ngor ak ki nga xamne mom moy mooy Tapha Mbeur waaye tamit danañ tëj sen saison lañ xamne ci journal bi rek euh danañ ko tëj le 22 6e mois moy le 22 juin 2025 combat ba nag ka koy tëj mooy di Reug Reug ak ki nga xamne mom moy Ama Balde voilà Reug Reug Ama balde lañ fassiyene mu euh, nga xam ne moy mooy comme euh, sen euh, saison ci ci jour bobu tamit caatu yof dana ci bëri ak nga xam mom moy Jacob balde voilà Thiatou Yoff dina laale ak ki nga xam ne moom mooy Jacob Balde Youssou Ndour aussi fa bëri ak ki nga xam ne moom mooy doomu Dango voilà Youssou doomu Dango waaye kii di Tafa Gueye 2 dina fa laale ak ki nga xam ne moom mooy Papa Bari Bari ah, lii mooy seen i combat yi nga xam ne fësal nañ ko ci jamono bi xëy na yeneen ñu ngi ñëw waaye yii lañ fësal a gëm ne yii taxaw na ah, ci ñi nga xam ne moom mooy waa Alburax Even di wax ah, lii mooy li fi jotoon a rus ci ay xibaar